hôpital Magatte Lô am lakk-lakk gu fa amoon ba tax sax ñeenti ndaw daal di jotoon ñàkk seen baqen ki nekkoon directeur bi nag di abu Sarr moom nag daal di nay démissionné tey jii la xamle lu ne mel ci bi mu doon janoo ak ñi nga xamante ne ñoo di taskatu xibaar yi li mu xamle daal moo di daal dafa jël dogal bu ne mel ngir daal di mën a noppal ñi nga xamante ne ñoo di autorité yi famem ak itam ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci boobule hôpital ci fàttali daal Magatte Lô ginnaaw ab lakk-lakk boo xamante ni amoon na fa am na ñeenti ndaw ñoo xamante ni jotoon nañ fa ñàkk seen bakkan ki nga xamante ni nag moo nekkoon directeur la hôpital di abu Sarr mi ngi nekkoon directeur foofu depuis atum 2015 ba léegi ñi nga xamante ni nag ñoo di waa gendarmerie li ñu xamle mooy que ni daal ubbi nañu ab enquête ngir mën a xam ana lan moo waral boobu la lakk-lakk